lol la ma wax léegi gars bay len adam mu egal live am bi senegal ko bëgg di ko seetaan nak yi da ngeen di tàppate écran bi bu ngeen bañee ñu signaler da koy ñam buñ signaler yeen da di tàppate bu baax da di tàppate di bës di bës di tàppate di envoyer di envoyer ay kër di tàppate di envoyer ay kër di tàppate kenn duko dag Dengan del di awai ay kër rek tapote di awai ay kër di awai ay kër di awai ay kër rek tapote rek di awai ay kenn du dagg live TikTok day wane ne kii li muy def neex na nit ñi kan moo ma war a signaler pour yéen baa du ñuy wër ay vie la man waruma ay vie de man damaa am sama piste bu leer maa génnee na bu lay buñ ko jàppee tey man la bu ko ne di tudd na bu lay man la Sénégal gëmma yaakaar ma ma ànd ak ñoom ci loolu ndax xam na ne aadama du waxantu waaye ki moom kaa bi génnee lépp da ko dàq live ah loolu mu tane ki nga xamante si nii réew mi moom la di déglu mu def fi lu ne mais kooku mënoo koo dàq live mun ta nekk man bokkuma man fortaatuwu ma li may def samay information la ma xam ko mënoo maa dàq live du ma koy fortaatu moo tax scénario bi yépp maa ko tëgg maa xam lépp kooku mënoo ko dàq live 4 millions gars yi di leen yónnee ay kër di tàppate kenn waaw waaw xol fii xool leen fii bala maa commencé xaaral ma foto ko cottu ndeyam kan mooy seen baay ne ko kan mooy bay baay <laughs> waaw waaw waaw waaw laa ilaha illallah ma ne ko subhanallah toppati leen tey laal kër yi gaay muy yëg xoolal ma fii <laughs> kala naxa tey moytu leen capot waay moytu leen capot waaw waaw waaw waaw léegi nag gars yi damaa bëgg ngeen déglu ma bu baax ma wax leen Nabou Leye lan moo waral mu nekk complexe lan moo tax na Nabou lay policiers yi téye ko ba tey déglu leen ma bu baax a baax a baax attentivement kuy enregistré commercial kuy teglu boos commercial te xam ne barki Serigne Babacar Sy mi ma yaakaar Khalifa Malick mi ma yaakaar man lépp lu ma wax ci cas bi da ngeen ci teg seen bët ndax man du ma waxantu ndax ki may informé dama koo xam ci piste bu leer lay nekk te man foofu lay nekk nabu lay xam ngeen lan moo tax ba tey nii nii policiers yi téye ko parce que nabu nanguwut a wax scénario bi ni mu demee nabu day lëre polise yi di leen tegal leneen loo xamante si nii ay nettali la moom la war a wax mais nabu dafa sax xam naa ko ndax à tout moment mën naa lu bees ci man yàgg naa ko am nag xam naa ci ñu ndaw ñi la bees mais man moom quarante li xew ci samedi bi ba jàpp ci dimaas bi suuru cant ya ak na mu demee xanaa xamul leen ne Nabou Leye yàgg naa nekk bandi Nabou Leye far bu ma mas am bandi nga ay feeru geñ da koo mas a neex ba muy génn ak seeraas dafa nun lu rëy biir Pikine waye lolo duma ca wax parce que kaawu ko deeki la di lijjanti Aziz Dabala tay ba ngeen yewo gaay yi gisu len version yi ni mu sansé lan lan waxon affaireu góor jigen la ma ñëw wedd len loolu ba mu set ne leen dul duul to ko ci paranoose jëm ci walum góor jigen dedet pisi ya ngay sansé rek man luma ma wax du deñ li fi am la len di wax mom la ñuy bañ a wax ñoom ko communiquer ci alors déglu leen ma bu baax lépp dama koo bind mi ngi nii ma téye te dama koy liir pour ngeen xam ne man lépp lu ma wax dama koo maîtriser du ma fen dafa am ñu mu joteel foofu ca Pikine la ma wax nag du ma ko répété waat ndax damaa bëgg kuy capter dama bëgg nga wax ne man dugal leen ma fépp ñoo xam ne Adama mooy wax ndax lépp lu ma wax dama ko maîtriser te dama koo xam barki Serigne Babacar Si lii may nettali nii loolu la Nabou lay war a jàkkaarloog police yi nettalil ko ko suba bu waxee lu wuuteeg loolu nag ñu dugal ko ci giri bi suba lay dari yéen sansam bu fekkee Nabou dafa continuer di leen lëre affaire bi du mën a dem lii may nettali moom la policier yi bëgg a dégg ci lamiñu Nabou Leye mu waxal ko boppam loolooy kaawu Nabou Leye moo ko yàggal ci policier yi li may nettali nii nag dama bëgg ngeen jël seen temps yéen ngeen bind benn par benn ngeen déglu ko léegi ma laal quarante mille vues xanaa képp kuy live nag bu ma teglee ñaari vingt mille nga xam ne sa baay ñëw na war ngaa mën a noppalu partagé leen live bi tey tappate quarante mille sénégalais kan lay seetaan fii quarante mille ci réew mi kan lay seetaan na live bi yéeg mu gaaw quarante mille doomu aadama kan moo koy am fii quarante cas quarante mille <laughs> waaw waaw waaw waaw mooy yi jox leen ma cër jox leen ma cër ci réew mi <laughs> jox leen ma cër ci réew mi day dem cinquante sax <laughs> ma ne ko day dem cinquante waaw waaw gars yi na live bi yéeg partage yi na kawee tàmpate leen écran bi mu laal 10 millions tampatas mu gaaw lii ma leen di nettali lii dama bëgg yéen ñëpp ngeen enregistré ko ngeen bind ko te xam ne kaa bi nu rayee Aziz Dabala ak Wally lii la demee léegi nag Nabou lay suba bu jàkkaarloog juge bi lii la ko war a wax lépp lu ci Nabou lay wax lu wuuteeg lii dina ko dugal parce que suba la war a jàkkaarloog procureur déglu leen ma li may expliqué nag bu baax ngeen bind ko Aziz dafa am ñu mu joteel Pikine un numéro un ci kaw ñi mu joteel ci kaw ci ñi mu joteel groupe gang la ab groupe lan te gang bi Nabou Leye xam na leen bu baax gang bi jotee Abdou Aziz Dabala Nabou Leye xam na leen maa ngi ci numéro un bi yàgg nañoo fréquenté Nabou Leye ca Pikine parce que Nabou Leye ak group bi rey Abdou Aziz Dabala yàgg nañu ñoom di fréquenté numéro de groupe gang bi nga xamante si nii ñoom ñoo jotee ak Abdou Aziz Dabala ñoom ñoo organiser cant yi Ndeye Ndiaye Tyson mi doon tudd bokkut ak Ndeye Ndiaye Tyson bii nga xam ne moom mooy promotrice mais Ndeye Ndiaye Tyson boobu dafa jël boppam tuddee ko Ndeye Ndiaye Tyson bëggul woon ñëw waxoon naa leen ko loolu dafa lànk ne du ñëw ci cant yi numéro trois Aziz bi ñu xamee ne bëggul ñëw dañu ko jaarale ci Nabou Leye bi ñu xamee ne Aziz bëggul ñëw ci cant yi dana koo jaarale ci Nabou Leye numéro 4 ci boppam mooy ki forcé Aziz Dabala pour mu ñëw ci cant yi puisque dañoo invité Abdou Aziz Dabala mu bañ ñu jaare la comme moom na bu xamante nan te moom na bu yàgg nan te moom na bu ay xarilante wóolu na nabu nabu forcé Abdou Aziz Dabala ba mu ñëw ci cant yi maanaam cant yi bu ci Aziz tegee tànkam yàlla ak rabu lay moom moo tax mooy numéro 4 numéro 5 bi Abdou Aziz Dabala ñëwee ci cant yi dañu ko provoqué groupe bi dañ koo provoqué ñu bagaar ak moom ñu jot xeex ñu jàppante ak moom jamono boobu meer ami Abdou Aziz Dabala teewoon nafa meilleur ami Abdou Aziz Dabala teewoon na fa il était présent coow lu metti lan doon coow ak Abdou Aziz Dabala numéro 6 Nabou Leye ba coow li méttee ba nu songonteeg Abdou Aziz Dabala Nabou Leye moo yëkkale Abdou Aziz bi coow li ëppee loxo mu daal koy rawale na bu lay ci boppam moo yóbbu Abdou Aziz ah, moo yóbbu Abdou Aziz Dabala gàllem ci appartement wam maanaam na lay moo ànd Aziz Dabala yóbbu ko ci appartement ba gars yi live baa ngi bëgg de nanu tàppate écran bi na lay gars yi nan tàppate écran bi ñu partagé live bi mu gaaw yéen ay vie moo leen jaaxal vie yi mooy problème bi wala nu mu demee nii gars yi fan lan yemoon fan lan yemoon ban numéro lan yemoon lii day laaj nga commencé waat ko quoi loolu mooy problème bi gars yi fan lan yemoon ban numéro lan yamoon numéro 5 non day laaj nga commencé waat lépp ndax am na ñoo xam ne dañoo bëgg a xam ba fee bi nan lanu rayee naka lanu rayee waali bëgg ngeen koo xam ba ngeen a xam tamit nabu lay naka lan def ba rey laay bi mais lu waral rey bi ci biir yéen demande bi ngeen war a posé wu mooy rey bi lan moo ko waral maanaam ray bi lan lu tax ray bi pourquoi ray bi loolu faaw ngeen concentré wu ci loolu ba pare ray bi lu tax ray bi daal. numéro cinq wala ma commencé waat ko rek te ma koo jëlaat en charge commencé waat ko ma commencé waat ko à zéro parce que xam nga lu tax sinon damay réer te yéen tamit da ngeen réer naa ko commencé waat à zéro rek parce que tant lépp bind naa ko da ngeen di réer wala ma réer rek baal ma commencé ko à zéro histoire bi dafa gudd de par numéro la numéro 10 11 12 13 13 la yem mooy fee treize mooy fin bi numéro treize la yem la ba treize léegi da ngeen di déglu ab gars yi da ngeen di tàppate écran bi ngeen partagé ko moytu leen ñu signalé ñu waaye gars yi tamit nag nan bàyyi signal yi yàlla def na ma ni may mel ci Sénégalais yi ba pare waaw léegi nag yéen pour li ngeen ma mën a fayee xam nga mooy lan pare sama bio TikTok bi da ngeen fay dugg. Telegramu King Saliou officiel ma nga fa ngeen dugg tàggatu bay jàkkarlook policiers yi di ko jaayanteeg ñoom di ko jaayanteeg dig di ko jaayanteeg influenceurs yëpp pour tegal dëgg bi ci taabal bi ak ni mu demee lépp aja euh, dañuy commencé waat Aziz Dabala dafa am ñu mu joteel Pikine numéro un ci kaw ñu mu joteel Pikine groupe gang la maanaam benn groupe gang lan ab groupe gang lan ay wëyu ay bandi ay déléka te gang boobu Nabou Leye xam na leen bu baax yàgg na noo fréquenté Nabou Leye ñoom ñoo bokk seen na bu dafa mas a yàgg nekk bandi ak délinquant far bu mu mas a am wëyu la am na lu mu defoon ba muy nekk ak bàcc seeraas wax naa leen duma ci ñëw ndax kaa boobu noonu jàll na nan focus ci ku deeki numéro deux groupe gang bi bi nga xamante si nii ñoom ñoo jotee ak Abdou Aziz Dabala ñoom ñoo organiser cant yi bi ñu organiser cant yi ñu daal di invité Abdou Aziz Dabala maa ngi ci numéro deux bi mais Aziz bëggul woon dem dafa bañ ne moom du dem ci cant yi numéro 3 Nabou Leye ci boppam moo forcé Abdou Aziz Dabala ne ko ñëwal ci cant gi puisque ñoom ñaar xamante nan te miinante nan te wóolu na ko te xaritam la Aziz existé bañ Nabou forcé ko ne ko ñëwal ci cant yi maanaam Abdou Aziz Dabala bu ñëwee ci cant yi yàlla ak Nabou moo tax numéro cinq Aziz ba mu ñëwee ci cant yi dañ koo provoqué xeex ak moom jàppanteeg moom histoire ak moom maire ami Abdou Aziz Dabala teewoon na ci cant yi il était présent ñu histoire coow lu metti lool ñoom ak Aziz numéro 6 Nabou Leye moo yëkkale Aziz ci coow li ba coow li ëppee loxo coow li ëpp doole cant gi di riir histoire bi bëri lool coow li bari lool Nabou lay moo rawale Abdou asis Dabala moo jël taxi dugal ci Abdou Aziz Dabala yóbbu ko gàlleem Nabou lay ba muy yóbbu Abdou Aziz dabalaa maa ngi ci numéro 7 Nabou Leye ba muy yóbbu Abdou Aziz Dabala moment boobu cant gi jeexagul mais ñoo ngi coow ci seen biir xeex bu metti si lendemain bi dama bëgg ngeen déglu bu baax ci lendemain bi gars yi. am ñu dem ci cité ci cité bi mooy lendemain bi ci lendemain bi ci la am ñu dem ci cité ba ci la ñu rey Abdou asis Dabala le lundi matin déglu leen ma bu ci lendemain bi lendemain cant yi ci lañu ñu rey Abdou Aziz Dabala lendemain cant yi dimanche la woon lundi bi lundi boobu boobu fekk na waali xëy maanaam waali nekkul woon ci kër gi lendemain bi gaa yi bi gaa yi demee ci cité bi ci landima boobu ci la ñu reyee Abdou Aziz Dabala mais fekkoon na waali dafa dem xëy maanaam waali nekku fa woon lan lan di matee boobu waali xëy na dem na liggéeyi mais waali teelul liggéeyi nag te foofu la leen bàyyi maanaam ba ñëw ci kër gi fekk bi waale dafa waroon a xëy liggéeyi demoon na liggéeyi waale waale teelul woon a dem liggéeyi boobooy numéro 7 numéro 8 waali comme bi muy dem ay 10 heures ay 10 heures la dem liggéeyi waali 10 heures boobu bàyyi na ci kër gi ñi ñëwoon seet si Aziz loolu mooy li waral ñoom ñu xaar le retour de Wally ci sinon bu ñu demee te xaaruñu Wally donk bu meurtre bi jibee Wally mën na leen a parce que ñoom la fa bàyyi looloo waral ñu toog ñoom xaar Wally ba mu ñëw ñu dog ko ciy teg numéro huit laa leen di nettali man li may wax dafa am fu ma ko teg lii la Nabou Leye waral lijjanti waa wala wax waa police mu bañ looloo ko yàggal maanaam Nabou Leye lii la war a nettali mu bañ ne du ko nettali looloo ko yàggal ci kaa bi moo ko yàggal foofu numéro 8 bi waaw fa laa tolloon numéro 8 bi mooy waali ay 10 heures la dem liggéeyi boobu bàyyi na ci kër gi ñu ñëwoon seet si abdu Aziz Dabala loolu mooy li waral ñoom ñu xaar le retour de waali sinon bu ñu demee te xaaruñu waali donc bu meurtre bi jibee waali mën na mën na leen a parce que ñoom la fa bàyyi. numéro 9 ci laa toll nii mais ce lundi numéro 9 laay wax ak de mais ce lundi Wally dafa teel a wàcc te heure bi mu wàcc du heure am déglu leen ma bu baax lënd bi Wally dee daa teel a wàcc mais Wally heure bi mu wàcc du heure am ndekete ñi rey ñoo message Wally à la place de asis que pour mu wàcc daf koo soxla message bi que dafa am bi mu ko ko waxee kenn ki moo ñëw ci appartement bi immédiatement loolu moo waral waali teel wàcc buleen seetloo waali ñi mu bokkal seede nañu ne waali liggéey na ci lënd bi mais dafa teel a wàcc bàyyi nag may déglu est-ce que yéen a ngi déglu kaa bi numéro 9 ci laa tolloon ak yéen numéro 10 laay waxee ak yéen 10 ci laa toll nii numéro diis Wally bi mu ñëwee diis Wally bi mu ñëwee fekk na raykat yi mëne nañu ba Aziz man man euh, euh, fekk na reykat yi mëne nañu ba Aziz te Aziz moom moo ubbi téléphone bi car dañu ko laaj kot bi mu joxe ko kaar sinon. si euh, ñu joxe ko ñu joxe ko non dafa lànk ñu joxe ko car euh, sonowam sonowam na mais dafa jàppoon maan waaw sone woon na mais dafa jàppoon sone woon na mais dafa jàppoon ni xaalis lañu soxla nekke sete pour message ñoom ñoo laaj euh, maanaam ñoom dafa dafa bëgg a wax fii ñoom ñoo laaj Abdou Aziz Dabala téléphone am yaa ngi dégg pour message Wali, ne ko khalis lañu soxla ndeke message dañ doon envoyer pour message Wali, motax ñu laaj ko code téléphone bi laaj ko téléphone bi message Wali. pour mu ñew ci kër gi manam ñom dañu laaj ko téléphone bi Abdou Aziz Dabala ne ko khalis lañu récupérer ndeke ah téléphone bi le jël message wali pour mu le ñew pour mu le Wati. comme si que Abdou Aziz Dabala mom moko message pour ñu mën ko ray pour ñu mën koo rey aussi car gis na leen xam nga waal da leen a gis ñoom bi ñu dugg ci waali sax moo leen wax que Aziz moo ngi ci biir maanaam ñoom ba ñuy dugg ci biir appartement bi waali moo leen wax ne leen mi ngi ci biir appartement bi loolu moom mooy numéro diis salon bi lañu ñu asis yóbbu ko ci beneen chambre bi ci lañu ñu rayee Waali kaar Waali gis na leen bi muy xëy déglu leen bu baax lundi lundi bi ba Waali wàccee ay 14h15 maanaam 14h15 ci bëccëg dugg fekk ci salon bi la ñu rayee Aziz yóbbu ko ci beneen chambre bi ci la ñu rayee Waali kaar waali gis na leen bi mu xëyee numéro 12 bi waali dugg see kaar waali moom aussi am na caabi am na caabi buy tijji appartement bi bi mu duggee moom aussi gis na foofu takk-takk deret mu dugg ci lanu tëj foofu ak caabi maanaam dañ ko tëj ak caabi ba waali dugg see caabi bi ci porte bi à l'intérieur moom aussi ñu boole ko ci rey ko bi waale dugg see waale yoroon na caabeem bi mu duggee ñoom danoo tëj bunt bi bàyyi caabi ji foofu ci porte bi à l'intérieur moom aussi ñu boole ko ci rey ko maa ngi ci numéro 15 te ñi ko def gang la te nabu xam na leen nabu moom en même temps dafa amoon relation amoureuse ak Abdou Aziz Dabala foog naa loolu waxoon naa leen ko. amoureuse moom ak Abdou Aziz Dabala 16 donc Nabou. non seulement elle est complice... car xamna te bëggul wax et Aziz il a été menacé 5 jours avant ñukoy ray mais les noms amaguñ leen Nabu li tax bu nek complice xamna te bëggul wax et Aziz il a été menacé cinq jours avant nous koy rey mais les leenoo amaguñu ko pourquoi nabu waxul lu leer car si la bokk mais bi mu ci le but c'était pas pour rey Aziz mais sëfal ko pour mu génnee xaalis bi mu yor mais pas pour mu rey sûrement Aziz jaayante na ak ñoom bi ñu koy dóor xamal leen ni doo leen ci génnee noonu amuñu choix ñoom ñu ne xaaral ñu rey ko kenn du sib mais ñoom benn problème la ñu amoon mooy waali kaar kooku mooy ki leen gis bi ñuy dugg ci kër gi mangi ci fee bi am na nag ay affaire yu ñu fekk galle Aziz ay buso ay puso ay yamba te Aziz du tux du fumer donc ñoom ñoo ko fa bàyyi sûrement pour saltel Aziz kaa baa ngi noonu lii la Nabou Leye war a jàkkaarloog justice bi suba nettalil ko ko lu ngeen ma gisee logique na wala logigul dama ko maîtriser nag li ma leen wax fii dara du ko dindi dara du ko dindi dara amul ko mën a dindi nu ngeen ko jàngate lii mooy kaa bi lii moom moo xew nabu lay noonu la ci taqe léegi nag nabu dafa war a jàkkaarloog juge bi wax leen li xew mais nabu day bëgg a lëërale euh, lëëre gaa yi wax leen leneen tegal leen leneen xamal leen leneen waxaw ma woon dama doon nelaw yëguma woon nangam nangam te yëg nan parce que danoo police yi danoo localiser seen téléphone ñoom ñëpp xam ne lien bi moor bi nekkoon ñoom ña nga woon jour boobu noonu ñi ngi woon kër Abdou Aziz dabalaa am na dof yu naan ma waa kon nabu nan la woowee magu kii bi nabu na la dégganteeg moom dan ne la dañu leen a localiser ca suur ba xam ne téléphone bi ñu yore nekkoon na ci suur boobu crime bi di xew mais kenn waxu la dafa bàyyi téléphone bi amul lu mu wootee ay dof ngeen rek yéen da ngeen feebare léegi nag dinaa leen jël benn bat benn mais nag lenn laa bëgg ngeen defal ma ko quarante mille personnes yi. leneen di xew lii daal suba bu Nabou lay waxee leneen lu lu bokkut ak lii ci kaso bi lay des suba mooy dernière chance am li ma leen nettali lii bu waxee leneen lu wuteeg moom dinañ ko tëj parce que dafa war a wax dëgg na Nabou na wax dëgg wax kaa bi ni mu demee jarul fen lii xew-xew na ba pare. lii la kaa bi demee lii mais ay góor jigéen laa asi da koo bëggoon a non yooyu ay da bëgg ñu di protéger